andi na li tubaab di wax débat national ubbi na bëtu sénégalais yépp ci mbir mii ndax balaa ñu ciy àdduna laata ma ciy àdduma man mii defe naa ñi xamoon la jëm ci wax jooju bariwut wala bu ñu ko xamee it joxuñu ko woon boobu solo kon ñuy sant yàlla la taxoon ñu wax ko nag mooy jàpp nañ ni dafa jot ñu wax ci taxawaay tey bii nag damay wax ni sama kàddu jëmalewuma ko ci ñu am péete ba noppi parce que Sénégal dafa am nu mu bindoo dafa am ñoo xam ne dañoo féete far seen droit la ak motivation bu tax ñu far fa ñu far ñooñu mënoo wax ba mu dugg seen nopp ñooñu waxuma ak ñoom sama wax jëmalewuma ko ci ñi nga xam ne loo yëkkati jàpp nañ ñi ñoo ko gën a xam ñépp te doo leen gis mukk nag xeex taxaw ba ñu xeex waaye ñoo xam lépp ñooñu waxuma ak ñoom sama wax jëmale ma ko it ñoo xam ne saa suñu yëkkatee dara lañ cay séenu ci suuf ak lañ la leen ciy jox moo tax ñu yëkkati ko ñooñu taxuñu maa wax ñii ma lim ñépp nag yàlla def na as toq la ci Sénégal minorité la boo xam ne lu tuuti la ndax senegal léeg-léeg dara am fi ñenn ñi rek ñoo koy yor nekk ci rajo yi ci télé yi di mbër mbëri mbër mbëri ba nga foog ni Sénégal a ngi tas waaye boo génnoon léegi dugg ci askan wi xam ne loolu ñu toog foofu di ko wax ak li ne ci askan wi sore na sore naw ak wuute na ñi nga xam ne lii moo leen di dundal yàkkam suyu ñu dul ñëwee Sonko wax na pour ñu tëpp nag ñii di bind ñii di wax ñii di tërëre yi ñooñu tax ñu may wax ñi tax may wax mooy askan wi yow askan wi yow laay waxal ndax yaa ma ñor yow askan wi nga xam ne la ca ëpp ci yow amul féete du dul di xool fu dëgg ne nga taxaw fa yow laa waxal yow askan wi nga xam ne doonte ñoom ña nga yor seeni télé yor seeni rajo yor seeni journal bés bu ne ñu fexe nu ñuy lëbëtee sa xew ci ay wax yoo xam ne lalawul ci dëgg te teewut nag la nga xam yaa ngi ko xam fa nga jàpp yaa ngi fa jàpp yow askan boobu laay waxal yow transporteur bi chauffeur de taxi bi yow mi ne gare routière yow étudiant bi yow fonctionnaire bi toog buroom di liggéey mu xam ci privé moo xam ci public yow enseignant bi yow mareyeur bi yow sëriñ bi yow kilifa diine gi yow sëriñu daara gi yow sëriñu jàngu bi bépp xeetu sénégalais ak foo bokk boo ci génnee minorité bi nga xam ne ñoo ŋànk senegal di wax suba ak ngoon ba bëccëg yow moomu laay waxal di waxtaan goo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ko te mu lalu ci dëgg dong nag ndax dañoo wax violence dañoo wax fitna dañoo wax kuy jóg di dal ca moroomam te amul benn lay bu mu mën a lay ba tax mu def ko dañoo wax borom yat wuy dóore loolu la ñuy wax violence ñu bëgg nag su ñuy wax lu mel noonu keroog dama wax ab baat defe naa am na ñu mu naqari waaye saaga tax mu ci woon jóg xasti tax mu ci woon jóg waaye ki nga xam ne day gis dëgg mu ne fang mu xam ne lii dëgg la mu dëgg ci tànkam fatt ay bëtam ne duma ko xool kooku nag lañ koy tudde kon senegal dafa di réew moo xam ne wax fi dëgg dafa jafe ndax saa nga ko waxee ñu ne def ñoo saaga yàlla ci boppam ci téere bi wax na ne ñii duñu waxkatu dëgg soo koy wax soo ko doon tekki sax ci làkk bañ ko waxee dafa ne ñii ay fenkat lañu yàlla wax na ko ci téere bi te yàlla ñu gën a ëpp moo ñu ëpp sutura moo ñu ëpp yar yàlla xool na ay nit ne ñii ay naafeq lañu li tax mu wax ko mooy loolu ñu doon def rekk wëlbati kon suñu waxee saaga taxul ñu jóg walla xaste waaye Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy gis dëng bu ne fang seen intérêt taxaw walla ragal walla walla walla ñu fàtt seen bët ci dëgg boobu ba pare bëgg a wax safaan wi loolu de moo fi jeex te soo ko soo leen nee déddu noonu benn dictature la ñu bëgg a imposer nit ñi ba kenn dootul ñeme wax saa soo nee lii nga wax demewul noonu rek ay wax wër ci télé rajo yi nii la mel nitu fitna la nitu fitna mooy kan ñun suñu parti 2015 dañu am récépissé 2015 dinaa leen limal tey 2015 ba tey jii lan la ñu daj ñun ci violence 2015 dañu am suñu récépissé. 2016 29 août 2016 violence commencé parce que su ñuy wax violence su ñuy wax fitna dafa bëri form fitna du rek jël aw yat di dóor nit waaye fitna saaga nit mi ngi ci fitna xoqatal nit parce que yor nga état yor nga administration yor nga justice mi ngi ci fitna fay ay média ñu nekk ci deru nit suba ngoon mi ngi ci kon fitna dafa bëri forme kon 29 août 2016. la fitna bi commencé yéen ñëpp fekk ngeen bi Macky Sall di jël ab décret ne dàq na ma fa ma doon liggéeyee te dara waralu ko lu dul nee naa samp naa sama ndënd opposant laa d'accordu ma ak moom amul leneen duñ la musa ne Ousmane Sonko sàcc na te nekkoon naa foo xam ne su ma bëggoon mun naa am lu ne yàgg naa leen wax ku mun a génne benn preuve ni mus naa jël fukki dërëm ci impôt kenn ku ko mun a génne rek na wax duñ la ne Ousmane Sonko daan na tardé duñ la ne Ousmane daanu liggéey fa mu mës liggéey maa fa ëpp performance te ñëpp impôt xam nañu milliards yi milliards dugal naa ko ci keesu état te mosuma encaissé fukki dërëm kon kooku constitution may ko sañ-sañ mu ne damay dugg ci politique waaye àndumaak ak Macky damay samp sama parti nga ne loolu duma ko dégg ba xëy lu mu jàng loo xam ne jàngam ak. ndimbale ay waay waajuram ñoo ko permettre mu jaar fu mu jaar ba def concours bu difficile ba liggéey nga xëy jël sa décret daa jël sa avion ne mes dem Kenya ne dàq naa ko liggéeyam ci anam goo xam ne bañ nga sax ay avocat am teewe fu ñu ko waroon dégloo yéen ñëpp yenn a ngi fàttaliku li xawoon fi point E andi alkaat yi barricade point E yëpp ne benn al benn avocat rek laa am droit beneen avocat du dugg ba bés boobu audition amul loolu du violence ab père de famille yor njabootam di soutien de famille tooñul sàccul fenul reyul nga xëy ne dàq naa ko parce que àndul ak man te boobu jamono ñaata inspecteur des impôts ñoo ànd ak moom naan Macky Sall moo gën a rafet te ñu ci bëri suñ leen càmbaroon tey musiba am loolu du violence ñu doxati le 6 octobre 2018 ñu organiser suñu mitin Kër Massar doon dëgmal élection présidentielle pare mitin ba ki nga xam ne moo yoroon organisation mitin bi jóge ci mitin bi dugg këram à côté ñu fekk ko fa rey ko ci anam goo xam ne kenn mënu la wax lu mu demee muy soxna Mariama Sagna ba tey jii enquête ubbiwuñu ko ba tey jii mënuñu la wax ku def lu ñaaw loolu li gën a garaaw mooy lenn ci seeni responsable taxaw wax lu ñaaw ñaaw ñaaw ci moom ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi ci naqar loolu ban violence moo ko gën a rëy nañ ma ko wax ba tey jii moom moomu soxna Mariama Sagna ñetti bant yi mu fi bàyyi ñun ñii ñooy fay seeni njàng ñoo leen di toppatoo lu ñu mun ñoo koy def est-ce que mos ngeen dégg Macky Sall mu condamné violence est-ce que mos ngeen gis ay Samba Mboyam dal ci ñun mu génn ne condamné naa ko mosul am doo ko mos dégg parce que moo leen yebal léegi ñoom ñëpp dem nañu ba waxkat yi. bindkat yi saagakat yi dóorekat yi ñëpp jàpp nañ ne pour nga am code ci Macky Sall saagal Ousmane Sonko wala nga dóor ko soo demee mu wala félicité la encouragé la ñu toogaat tuuti ñu attaqué suñuy militant Ziguinchor dem ba dugg sama kër waayjur dem di fa nangu ay fiche de parrainage loolu octobre 2018 ba tey la diggante bi ñuy faat Mariama Sagna ak bi ñuy def loolu daanaka juróom juróomi fànn moo ci dox loolu du violence ñu doxati tuuti le 23 janvier yéen a ngi fàttaliku ñu ngi woon ci campagne électorale bi avant ñu dugg ci ab campagne électorale bi bu mu desee ay 10 jours la ñu ñëw suñu siège bi nekkoon yow fii yónni fa ay sàmbaaboo yi guddi kii nga xam ne tey mooy xëccoo mairie Dakar de dafa bëgg a nekk mairie Dakar te di ministre yónni fa ay sàmbaaboo yi ñu dugg ci biir toj ordinateur yi toj bagage yi fa nekk gaañ xale yi fa nekkoon ñu déposé plainte fii gendarmerie Foire ci identifié ñi ko def waaye ñu leen teg leen mbir mi ci suuf ba tey jii fala mbir mi jaare noonu loolu du violence ñu subir ko ñu doxati tuuti ndar le 4 février daanaka ñaari fan après coalition bi moom goro président organiser benn attaque contre suñuy militant fële ca ndar ñu gaañ fa ñu bëree bëri bëri ñi ñu damm seen loxo ñi ñu damm seen tànk ba tey jii déposé nañu plainte def nañu lépp fa jaare tàbbi géej loolu du violence le 10 février toujours ci campagne bi ñu organise ab euh, piège bi ñu demee bi ma demee Mbour di campagne ñu organiser ne du ma dugg tefes daal jël ay oto baare foofu jël ay sambamboy ñu ñëw attaqué sama convoi loolu violence la ñu jóge foofu ci même bés ba war a fanaani Fatick ba ñuy dugg Fatick nañ ñu fa attaqué dóor ci ñu bëree bëri gaañ ci ñu bëri ba tey jii am nañ kenn koo xam ne au moins weer wu ne dinañ ko andi Dakaaru pour ay rééducation yu muy def ci ay tànkam loolu mi ngi fi yàggu fi loolu du ay violence contre Pastef le 18 février 2019 mun Mountaga Sy DG APIX daal di recruter ay Samba booy bi may romb Aéré Lao ñu attaqué ñu sànni xeer créé fa problème boo xam ne kenn xamul nu mu toll. loolu it li may wax ni yëpp nag ko dugg Google tapé léegi gis ko ndax internet au moins comme censure bi bëri na fii comme censure bi bëri na ci dëkk bi waaye internet moom au moins mën nañu am lenn ci seeni média de mais internet bi kenn moomu ko. moo tax suñu jógee naan xale yi dañuy saaga ci internet bi xale yi déedéet violence bi ñuy daj ñun ci média yi média yu bëree bari bari ci réew mi violence boobu moo gën a foor fuuf réponse yi nga xam ne moom la xale yi di am encouragé wu ma ko facilité mu ko waaye outil boobu la ñu am xool leen télé yi xool leen rajo yi lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko ku ga dàq mën a saaga Ousmane Sonko rek la ñuy tàllal micro ne ko demal saaga loolu moo fi xew kon te li may wax ni Sénégal nañ ci bàyyi xel nag dañuy suivre rek parce que fii kenn kenn gumbaatu fi ku foog ni jël ay milliards jox ko ay ay ay ay ay ay patron de média am na média yu baax am na média yu jub la ëpp ci journaliste yi ñu ngay def seen liggéey correctement waaye xam nañu système bi nu muy fonctionner ku foog ni nag noonu nga mun a régler problème bi dangay nax sa bopp jamono ji jamono clic la ñun sonn ñu ci te plus ñuy wax plus barke bi di yokk plus bayre bi di yokk ñu ngi sant yàlla ndax su doon looloy détruire nit détruire nañ ma bu yàgg dañuy wax fii ci campagne bi balaa ñu dugg campagne bi naan ay russe ko jox xaalis ay euh, xaw ma ay société britannique moo ko jox ay milliards ak lu ne ñu wax ko fi sos yooyu yëpp yàqaluñu dara ñoo ngi dox suñu dox dictature bi ñu bëgg a fii defe naa dina jafe de ci ñoom ñu ñëwaat ma tëb yu bëree bëri bi ñu ñëw ci deux mille vingt et un bi mois de mars deux mille vingt et un mois de mars ci ay tappale ak ay caaxaan ay complot moom Macky Sall mënoon na ko arrêté waaye wax na ñëpp ni jekku naa ko loolu la gëmoon je ci moom xam na ko ñu def seeni tappale citoyen bu jógee këram war a dem tribunal yow am nga sañ-sañ ne ko yoon bii ngay jaar forcé te defaat nañ ko barki dem ku ñu convoqué kay suñu la nee 9 fexeel ba 9 fekk la fa est-ce que day xëy 6h du matin dem Pikine dem Guédiawaye doog a ñëw loolu yoram sa yoon newu ci ñu créé fi ay violence yoo xam ne gaañ na nit ñu bëri loolu ci xeetu violence yi la diggante février ba mars yéen ñëpp gis ngeen ni ñu defoon sama kër char de combat fi char combat fële mu mel ni Hitler la ñuy surveiller amoo sañ-sañu génn traumatiser sa famille traumatiser sa waa kër say doom su ñuy génn jàngi sax dañuy tiit loolu lan moo ko ëpp ci xeetu violence ñu ñëw daa di utiliser violence aveugle ñépp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy Samba Boy siège APR lañu newoon ak siège PS vidéo yaa ngi fi ñépp gis nañ ko jox leen ay fetal ñu génn di tiire ci xale yi ba fukk ak ñeenti bakkan rot lan moo ëpp loolu ci violence lool du violence loolu du fitna loolu du loraange bu ñu teg nit ñi Macky Sall mooy le président le plus violent bi senegal musa fukki bakkan ak ñaa ak ñeent rot na ci ñaata nit ci blessé bi ñu paree ba léegi bañ na ne du recevoir euh, mbokk ñi seen bakkan rotut bañ na bañ na ne du leen indemniser ña ca gaañu ñun ñii ñoo leen di faj ba tey dañoo jël ab kër fii wakam dugal leen foofu di leen faj ñi ñu ngi ci rééducation ñi ñu ngi ci ay situation yu métti ñii dañoo tétraplégique weer wu ne dinañ ci def lu mu tuuti tuuti million ak genn wàll ci di leen faj Macky Sall ne yoonam new ci du leen recevoir du recevoir seen i mbokk du indemniser ñi seen baata ba bakkan faatu mais loolu lan moo ko gën a rëy ci violence te pourtant bi ñu nee ab militant al militantam euh, faat nañ ko ci loo xam ne du violence bu ñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu àndal ñi ñu dàppoon assemblée bi mu nekkee nguur dafa ñoom indemniser leen ñii seen bakkan rot mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir seen wayjur loolu est-ce que am na lu ko ëpp ci violence est-ce que am na kon chaque jour nag ñuy dund ak ñoom loolu saa soo génnee coggal ñoo ngi lay topp foo dugg ñu ngi lay espionné sa kër dañ koy surveiller sa njaboot dañ koy surveiller say doom dañ koy surveiller loolu du violence essayer am une torture psychologique sur les gens te ci nguuru Macky Sall la xewee le 25 juin 2021 yéen ñëpp seetaan ngeen fii bañ may attaqué assemblée nationale député ñëw di def sa liggéey ñu attaqué la. ci loo xam ne dañ ko yàgg waajal ñu yàgg ñu koo yéegal moo tax bi mu amee ki ko def defe naa dootu ko def wala maraakisam fekkewu ko lu ñu yàgg a waajal bi mu amee da koo félicité moom parce que yëfu xale yooyu lay def nit kuñ ne kii saaga na Sonko wala kii mu dugal ko ci avion photo ak moom président la république lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bii weesu wala 15 octobre gis ngeen ba ñu may attaqué Ziguinchor te ki ko def moo ko may fit ndax moo dajale ay ndawam mooy yenn ndaw yi ngay gis rek mu caamu cooy nekk ci télé yi di wax ne leen kii seen masse yéen a war a xeex ak moom yéen a koy attaqué parce que ñoom lu ñu def ak lu ñu reñoo ñu yég ko moo tax nga gis ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñett yu ne ñu ne ci télé bi di saaga seen wax yëpp nag saaga la amul leneen moom Macky Sall moo leen ngemb moo leen may fit waay waay su ma demee sama dëkk waa UNACOIS invité ma ñu war a waxtaan ci économie locale bi nit nekk fii duma fi dugg ba tax nga dem yenu say sa sa sa gàngoor ñëw di ñu attaqué est-ce que dégg ngeen Macky Sall condamné violence yooyu mus ngeen ko dégg mu ne je condamne l' attaque qui a été perpétrée contre Ousmane Sonko à kan moo ko fi mus a dégg musul am su paree taxaw ne parce que moom xam nga luy suñu différence man lu may def dama koy assumer man du ma mii kër du mu ay nit ne leen dem leen saagal ma dem leen dóoral ma ma taxawee ne loolu mooy suñu wute su ma bëggoon dóor ñëpp dinañ xam ni may dóor waaye man du dóor kat. du ma saagakat yarewuñ ma ci loolu xamuma loolu moo tax suñu papa yeeg suñu yaay yéen laay waxal ndax léeg nga dégg ñu naan waaw diw dafa yaroog nangam nangam gis nga diw dañ koy natt ci ay jëfam duñ ko natt si suy wax ndax day wax waxu ku sedd ak waxu kàkkataar ak déedéet jëf lañuy ñuy natt attaque boobu am na 15 octobre 31 octobre ñu delloowaat attaque ba ba tey ca Ziguinchor loolu noo ko mën a tuddee su ma ci yokkee nag jàpp yi ñuy jàpp ci loo xam ne amul benn fondement te saa suñu jàppee nag njëkk nañu génne alkaati yi ba ay nit gaañu ci te lii ma wax mooy li nga xam ne concerné na Euh, Pastef kese nee naa violence verbale yi duma ma ci wax te nag moo gën a mun a yee fitna parce que fii ku nekk da am njaboot am na yoo xam ne mënoon nañ ko régler neneen waaye ñun ñoo toppul yoon boobu téye nit ñi toog xam ni foo xam ne yonent yi muccuñu ci nit ñu baax ñi muccuñu ci ñun mënuñ cee mucc li ma wax keroog nag tànk mi ngi ci ay saaga wax ju ñaaw loolu takk day dem waaye nag yëkkati ay yat ak ay ngànnaay dem dóor ay nit keroog Ziguinchor suñu gaawuloon am na benn xale boo xam ne fii ci baat bi lañ ko jam paaka deret bi naan faj faj faj foo toll mu yegg fa kooku munoon na euh, euh, munoon na munoon na euh, ngaccu ba jeex takk suñu gaawuloon loolu barki démb la ana justice su Sénégal ana procureur ana polis ana gendarmerie li gën a garaaw mooy su ñuy def yu mel nii keroog bi ñuy attaqué Ziguinchor police a nga fa dañ leen woo ñu ñëw fële la ñu taxaw ci kaw tali bi egg si wuñu waaye bi ñu delluwaatee waajal ko waa ji song ñu duma ko duma yu métti woo woo na police mu ñëw doyul mu woo gendarmerie mu ñëw doyul ñu woo armée ñu ñëw ak seeni mété loolu yéen ñëpp gis ngeen ko. deux poids deux mesures boobu pour lan kon fii benn violence moo fi am mooy violence d'état te yemul ci loola dama ne lii mooy li nga xam ne moo ñu concerné ñun waaye 23 mars bañ fii fiy condamné Karim Wade ci loo xam ne man dama teel a wax ni lii du justice ñëpp dal sama kaw may leen lii règlement de compte politique la de justice fan la mujje CREI yi fan la mujje liste bi mu taxawaloon du am na ci ñoo xam ne tey ñi nga conseil des ministres toog ànd ak Macky Sall kon loolu du justice bu ñu nax sénégalais yi xam nañu sénégalais ñu am soif de justice mais dañ leen di nax di utiliser ay leviers judiciaires pour régler des contre politiques yeneen injustice yi gis nañ li ñu fi def Khalifa Ababacar Sall ñépp a ko gis te ñépp xam nañu jaaduwut dara tax ko woon jóg lu dul briser un homme yàq ko tere ko mun a poursuivre sa carrière politique ñépp toog di seetaan loolu loolu yàggul moom it ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñaata yoon lañ fi jàpp activistes yi parce que dañu war a def marche parce que dañu war a dañu def benn post ci Facebook nga jàpp leen pamti pamti leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ñii nga xam ne dañoo randal alalu réew mi ay rapport am cour des comptes of nag leneen leen nga tey leen làq leen sa gannaaw loolu du loolu du violence parce que première violence mooy injustice ku ànd ak man lu la neex def ku àndul ak man boo deful sax ma ma fenkal la loo def loolu mooy injustice te loolu mooy première source de violence liste bi gudd na te dinañ ko publier waaye li ma doon bañ rek mooy mu jël conférence bi yëpp ma laaj nag bi ma waxee lii ba noppi ma laaj est-ce que fii ci salle bi est-ce que ci Sénégal ba mu daj kenn mun na génne benn acte de violence boo xam ne dafa jóge ci ñun dem ci ñoom dañ ma ko génneel kan moomu mun a ne mus na gis waa Pastef wala waa opposition dal ci kaw waa kër Macky Sall fekk leen ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk leen ñuy def seen karawaat ñu dal seen kaw wala wala wala kan moo ko fi mën a génne amut amul te du mus am kon lan moo andi wax ji yépp imma ñeme na nit ñi ñeme na nit ñuy def dañuy dem jàpp ci loxo Macky Sall ne ko yow yaa nekkul ci dëgg yar bi nga yor di dóor nit ñi teg ko ci suuf suñ ko ñemewul nag nañu dem toog bàyyi nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay jullit lañu alquran bi ñu gëm moom ci boppam lan lañu sant bu dee ñaari nit ñaari group tongoo nañu bu dee ñaari group tongoo nañu sama alwa soriwul nag sama sëriñ sama xarit sëñ euh, Euh, euh, sëñ euh, Al si li may wax peut-être moom ma ko gën a xam waaye alxuraan da ko wax ci sourate Hujurat bu dee ñaari groupe tongoo nañu verset 9 na ngeen essayer da seen diggante waaye nag bu amee benn groupe bu beew bañ continuer moom ci tooñ bi ak ci dóore bi yéen ñëpp na ngeen ànd xeex ak moom ba xelam dellu ngeen doog a rafetalaat diggante bi yàlla moo ñu gën a màndu yàlla moo ñu gën a màndu nit ñi dañoo ragal ma ki sal wala lan yàlla xam na ni lii fi am yépp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane sonk kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan moo waral na Sénégal bu nit yoree nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba pare ne waa opposition banque leen seen yoxo rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañuy sax soo ne opposant la ah waa de di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab bi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp. tubaab nit mën a opposé subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañu ko war a tëj kaso Sénégal boo ne opposant la rek li ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ wax ci ban charte réew lañ ne opposition crime la ba kuy opposé rek danga war a dem kaso wala kuy opposé rek da nga war a toog ñu lay dóor subaak ngoon parce que waa ji moo yor nguur fan lañ ko bind ci réew loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nële dina fi dañ wax naa ko léegi Macky sal ci lañu am ci président moo ci gëna a violent moo ci ëpp fitna ndax lii ma taat li ma site nii amul ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi moom ci juróom ñetti at lii lépp def na ko fi te su ma continué woon boo matul 15 minute encore ñi ngi fi may cité loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratége politique nga stratège politique mooy ñoom ma attiir mooy jox nañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mi tegu na ci développement loolu mooy stratége politique waaye stratégie politique boo xam ne njuuj njaaj rek pour liquider adversaire moo am des pseudo analystes yoo xam ne soo leen gisee ci télé yi ma est une bête politique bet way ñoo xam nañ ko tuddee nañu bàyyi nax suñu bopp ñeneen ñi gënuñu ñu ñeneen ñi mën a taxawal démocratie ñu am de règles de jeu transparent transparentes nit ñi di compétir ci ni mu gën a rafetee li tax ñu gën ñu sénégalais bu jógee fii dem dundu itali wala Allemagne wala États-Unis wala feneen yàgg fa mujj mujj faa am nationalité da ngay gis règles yooyu nangu ko pourquoi suñu nekkee fii ñun suñu biir ñu bañ ko. loolu ñàkk sa bëgg sa bopp weesul lool Macky Sall doonul réew mi te gënul kenn fi ci fépp fu ñuy nattee nag ngëneel gënu fi kenn kon loolu il faut mu jeex may wax nag ni ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna keroog ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi demee na neneen ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñemeetul génn kilifa yi buñ ñu nee lii lañ leen sant defee nañ ko noonu nitu fitna du def loolu dañuy dégg dafa fekk ñu nekk ñu njëkk a mën a jàmmarloog Macky Sall ak ay injustice ndax def na ko ñeneen ak ñeneen peut-être conditions yi dajewul woon pour ñooñu mën a jàmmarloog moom te loolu duñ ci teggi suñu tànk. ak ñi pepe kale reefaan